xasida gi di fawzul mutiyan ah, dañ ko mës leeral waaye booba dañoo leeraloon rek salaatu yi nga xam ne maanaam njariñu salaatu yi lañu leeraloon fekk nag ci njëlbeen gi sëñ bi indi njariñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa indi ci njariñ yu baree baree baree bare yu mat a mat jàpp sax fekk booba bañu na guddal rek moo taxoon indi woon njëriñu salaatu yi rek nu bëgg a indi nag léegi njëriñul julli ci yonent bi mu indi te mu mat a jàpp lool daa wax ne boo demee ci téereb xaatima charxul xaatima danga fa fekk mu indi ci njariñ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu toll ci ñeen fukki njariñ ñeen fukk ne ba ci njëkk bokk na ci jëfe ndigalul yàlla sunu borom minha imtithalu amrihi sunu borom mo ne ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loolu moom yàlla ci joxe ndigal julli ci wante bi moko digal képp ku gëm yàlla kon jëfe ndigalul yàlla moy moy benn njariñ bi wa muwafaqatuhu fi salaati moy sunu borom daa wax ne inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي لكنك دا واخني يالا اك ملائكه نيوم يالا اك ملائكه دانيو جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم لكن نك يو جوليت بي بوي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم دا غاي بوك اك يالا ديكو ديف مانام دا غاي بوك اك يالا مبير مو خامني يي نانكوي ديف مو جولي سي يونت بي وي ني اختلفنا مانام نك سون بروم موم لين لو نه دوكو نرو كين dana wuute lool kon ndax sunu borom moom lan la ñu ko waxee léegi da koy wuuteeg ñëpp waaye daal mbir moomati mooy julli ci yonante bi bokk ngeen rek di ko def wa muwaafaqatuhu al malaayika loolu mooy li ñu waxoon léegi rek mooy malaayika yi ñoom it da ngay bokk ak ñoom di ko def muy julli ci yonante bi wa usulu ashrim wa usulu ashri salawaatin min allahi taala ala al musalli alayhi bokk na ci njariñal julli ci yonante bi mooy boo ko defee benn yoon rek yàlla julli ci yow fukki yoon loolu ab xadis la boo xam yonante bi ko wax ma ne ku julli ci man benn yoon rek yàlla julli ci moom fukki yoon te fekk nag julli ga yàlla julli moom mooy gën a màgg lool gën a kawe lool julli bi nga julli yow wa yarfahu lahu achra darajat wa yaktub lahu achra darajat bo julle ci sang ba rek sallallahu Alaihi Wasallam ñu yëkëti la fukki daraja bind la yit fukki daraja yiw wa ijabatu duaihi idha qaddamaha bokku na ci ñariñal julli ci yonte bi sallallahu Alaihi Wasallam, boko jitalé manam boy ñaan boy ñaan jital julli ci yonte bi laata ngay ñaan la ngay ñaan suñu borom day nangu sa ñaan wa sababun li shafaatihi day taxit nga am rammu yonent bi maanaam bu ëllëgee nga bokk ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñëw na ci ab xadis wali kifaayatihi llaahu ahammahu njàqare adduna yi ak àllaaxira yëpp yàlla dala cay fegal tiis tiis yi yitte yi adduna yàlla boo saxoo julli ci yonent bi yàlla dala koy fegal wali qadaaya xawaa'ijihi ba tey boo saxoo julli ci yonent bi sunu borom day faj say xaajo wali salaatillahi wal malaikati alayhi bokk na ci nag loolu lu mel noonu weesu woon mooy booy julli ci yonante bi yàlla ak malaayika dañuy julli ci yow te fekk ñoom nag yàlla julli ga muy julli ci yow mooy gën a màgg lool gën a kawe lool wali najaatihi min ahwaalil axira day taxit nga mucc ci tiiti àllaaxira yi mbugali àllaaxira tiit ya day tax nga mucc ca wali raddihi alayhi salaama lil musalli wal musallimi alayhi yonent bi boo ko boo jullee ci moom ñaanal ko salaatu ak salaamu nuyu ko muy salaamu bi dala koy delloo sa yoo ko defee rek mu delloo la ko loolu it day bokk ci njariñi kon wali nafyil faqr julli ci yonent bi day dàq ak ñàkk ak ñàkk hmm. Wali نوره على الصراط buñ taxawé di jéggi sirat bu ëllëgé sag leer day tak yow borom naan nuruhum yasa bayna aydihim bi aymanihim yalla mëna la boole ci ñoñé wata mu ne seenuk leer sek sek boko saxé saxalé mom julli ci yonte bi taxaw ci sirat rek sag leer day tak bare bare bare wali hidayatihi da Datang am jup gindiku wa xayaati qalbihi dalay musal ci xol bu dee day tax sab xol a dund wali tasbiti qadamihi alayhi maanaam bu ëllëgee it euh, bu ñu taxawee mën ngaa jàll wali tasbiti qadamihi alayhi wal jawaasi alayhi maanaam boo taxawee ci shiraat bi bëgg a jàng ba dal ñuy jéggi rek day tax sa tànk dëgër nga xam ne doo jeng ba moy ba daanu sawara day tax daal sam dëgg sam dëggu mën a dëgër ci kaw siraat nga mën koo jéggi jàll jëm aljana walikat billahi ko bayna aynayhi baraatan min an naar boo ko saxoo sunu borom day bu ëllëgee da lay bindal ci say diggante yaari bët yii ne kii set na ci sawara والبركة في ذاته وعمله وعمره wa asbaabi masaalixihi julli ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam day tax suñ borom barkeel sa lépp sa jëmm sa say jëf sa liggéey ak sa dund lépp lépp lay def sa barke sa lépp daal sa mboolem intérêt yëpp dala cee defal barke wali nay li rahmatillahi lahu day taxit nga am yërmande yàlla wali tabshirihi bil janna day tax nu bégal la ci aljana wali qurbil habdi min nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam fil axira bu ëllëgee bis penc day tax it nga jege yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonante bi moo ci xadis ba moo ne woon bu ëllëgee ñay gën a yey ci man gën ma jege mooy ña gënoon a bari lu ñuy julli ci man wa annaha taqumu maqaama sadaqati li dil xusra bokk na ci njëriñal juli ci yonante bi mooy boo ko defee day taxaw taxawaayu ku néew doole ba ku saraxu ku néew doole ku néew doole bu góorgóorloo ba saraxe tiyaaba ji day bari lool bu ko defee nag nee na tiyaaba ju toll noonu moom yoo julli ci bi da koy taxawee maanaam day taxawee taxawaayu daal saraxub ku néew doole wa tudakkirul abda maa nasiya day tax sam xel ubbeeku lool ba loo fàtte woon rek nga fàttali ko ko doo gaaw a fàtteeti وتطيب المجلس الذي تذكر فيه ولا يكون حسرة على متمعيه في الآخرة إذا جتاي بني تدي يوان تبي جتاي بني جلية شي يوان تبي بوك داي تاي لول نك جتاي بو يالا گرم تا دون اك بيرت بو ألغي يوان تبي دا وخون تاب حديث ني أو نيت بني توغي تاب جتاي تدون فو يالا بين يوان جتاي بو بو ألغي بيس بنج اك بيرت لي دون لول waaye nag jotaay bu ñu tuddee yonent bu ñu jullee yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee du doon ak perte mukk wa tanfi anil abdi ismal buxli ida salla ala nabiyihi inda samaahi dikrihi sallallahu alayhi wa sallam andi bi daa waxoon ne kan ay dëgg-dëgg mooy koo xam ne moom dañ maa tudd fa moom te jullu ci man ma nag léegi boo saxoo julli ci yonent bi moom turu ku nay dañ la koy dàqal maanaam da lay sori ndax loolu defoo ko watunji min adduhaai alayhi bi ragmi al anfi lahu boo saxoo julli ci yonte bi képp koo xam ne lay ñaanal ay baa mu bëgg laa liggéey daal baa bëgg laa ñaanal aw ay sa kaw du la mën dal dala yàlla julli ci yonte bi day musla ci loolu ci ku lay ñaanal ay ay ay ay bëgg mu dal sa kaw daal moom du man ci yow dara wa tarmihi ala tariqil janna nee na moom day ne dalay fab rek sànni la ci yoonu aljana nga tege ca wa tunji min charri almajlisi alladi laa yudkaru fihi ismullahi taala wa rasulihi wa yuxraju biha min aljafa maanaam yonent bi daa am xadis boo xam ne da caa wax ne aw nit bu ñu toogee ci ab jataay ba jug te tur yàlla jugu fa bu ñuy jug dañuy mel ne ku tiimoon tiimoon meddu mbaam di ko lekk te bu ëllëgee jataay ba ak perte gu rëy lay doon léegi nag moom lay wax ne la nag ayu jataay boobee nga xam ne dañuy mel ne kuy lekk meddu mbaam mooy nit ñi toog ba jug te tudduñ yàlla benn yoon jataay bu ñuy tudd yonent bi nag bu ñuy jullee ci yonent bi ba loolu ay woowee du ci am ay woowee yonte bi xam am ab jotaay bu ñu tudd yàlla da cee am jotaay bu ñu jullee ci yonte bi ay woow du fa am yàlla kon ña toog du leen mere mukk buñ dee julli ci yonte bi wa annaha adaaun li aqallil qalil min xaqihi wa shukrullahi wa nicmatihi allati anama alayha ma annahu alayhi salatu wasalaam yastaxiqu ma la yuxsa nee na julli ci yonte bi day mel ne boo ko defee xaq yi nga xam ne war nañu ci suñ war nañu war na war na nun ci yonante bi matale def nañ ci lu néew a neewa a néew gi ñu ko yàlla xéewalee moom yonante bi sallallahu day mel ne sant nañ ci yàlla jox nañ ci sant yàlla googee ci lu néew a néew a nag moo tax mu ne ànd ak nag yonante bi moom yeyoo na la mu yayoo ci ay xaq ci nun mënee su koo takk bari waa na bari goo xam ne mënee su koo takk walakin subhaanahu wa radiya min na bil yasiri min shukri waaye daay xaq yi waaye suñ borom nee na boo defee lu néew rek ci ak cantam baa nga jox dara dara lu mu tut tut ci xaq yoonte bi rek mu gërëm ko ci nun bég ca ci nun buñ ko defee rek mu nangul nu ko gërëm ko وأنها سبب لرؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام إذا قال المصلي اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور dana bokk na ci njariñ yi mooy day tax nga gis yonante bi moom julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam nga gis ko ci ay nelaw te mooy boo waxee salaatu gi allahumma salli ala ruuhi sayidina muhammadin fil arwaax wa ala jasadihi fil ajsaad wa ala xabrihi fil xubuur loolu boo ko waxee nee na day tax yonante bi nga gis yonante bi ci ay nelaw da ngay teg allahumma balligh ruha muhammadin minni tahiyatan wa salaman waaw loolu ci la bokk mooy da ngay wax kon allahumma salli ala ruhi sayidina muhammadin fi l arwaax wa ala jasadi fi l ajsaad wa ala qabri fi l qubur allahuma balligh ruha muhammadin minni tahiyatan wa salaman loolu nee na boo ko waxee rek ku saxoo da nga gis yonante bi ci ay nelaw وسبب لإلقاء الله تعالى الثناء والحسنة للمصلي عليه بين السماء والأرض لأن المصلي الطالب من الله أن يثني على رسوله ويشرفه والجزاء من جنس العمل كن فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك نانا داي تخ جولي تي يونتي داي تخ سن بارام تاغ لا تاغ ورافيت تي كوا سمان داك سوف داف دال داي داف تاغ تي كوا سمان دافيت وا سوف nangul la di la ndax nee na ki julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam day sakku ci yalla mu tag tag bi ba noppi dolli ko tedd nga ak terang nak su ko defé nak suñu borom lolu ngay bi lolu la lay fayé ndax dañu waxal jazaa min jinsil hamal borom xeetu jëf ja jëf rek ci la lay payé mais nak légui booy julli ci yonente bi nga xamné dang koy sakul kon yalla tag ko dolli ko tedd nga loolu nag la yonent bi faye defal la ko yawit kon ñeen fukki njariñ yi yëpp indi na ko ci julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam muy njëriñ yu bare bare bari yoo xam ne mat jàpp te kon jullit bi fu mu rek moom jullit bi aw làmmiñam war nay tooyoo ci tudd yàlla ndax daa gën ci rëy rek li ko tàmbalee ci ndigalul yàlla li dal mom day ñariñ lo xamne amul fu mu yam kenn xamu tamit nu mu toll. bul faté abonné bul faté abonné bul faté abonné.